kon amon na mbolo ba sañ ci toba ci loxol bopam neeg mbar mañ ko fekk ka ko gis ko ba wax ko ba nit ñi fekk ko fa moko liggey ci loxol bopam kenn dimbali ko ci dara bi mi dem diko toba tubaab bi jàpp anuta kenn moom dong nga andon dem nek nek gabon gabon ku fa dem da nga xamne seigne touba challenge la ci aduna bepp waye waxtane guñ ko nak àllub Afrique centrale man dem naa fa ba tey kuñ fa cëppeel dem mën na mën naa faatu ca saas ndax bari na ay matat bari na aw tàngoor bari na ab taw te ñun ñii fu ne mu ne wàtt wàtt ay ndox ñu seet fi ñu dugg xamuñu ab taw bari na ay matat bari na nit ñu tekkiwul ñu amul benn positif ci xeeb nit ci ñaawalaate nit ba fi mu toll nii fi ne nii sax man mas na ma dem Congo ñu ne ma passeport diggante Pointe Noire ak Brazzaville ma joxé passeport mi sénégalais ñu ne mu ne ma vous qu'est-ce que se passe chez vous vous si le train venait vous venez si l'avion venait vous venez si même si rien venait vous venez <laughs> vous savez la famille, vous savez la guerre Vous ji ko laaj ko ba xam am na arachide ci <laughs> nga xam ne bu ñu tasee ko Sénégal dañ koy ñaawal dañ koy xeeb dañ koy doyadal te ba fa Serigne Touba nekk dara woon waaye Serigne kenn waxtaanee ko ba léegi ba mu def li muy def lépp ba àggal ana kenn kan maa ngi taxaddi ñëpp kan moo mën a taxaw ne diw doomi Serigne Touba defal na Serigne Touba loo xam Serigne Touba mënu ko woon a am kenn mënu koo wax waaye waxtaanee guñ Serigne Touba waxtaanee ko buñ ko doon waxtaanee. lii léebu di wax naan gaynde gu dan euh, gu gu gu gu gu gar gu gu gu mer ne dëngañ wutali dég bi coowul mbott ya fa nekk walla picc ya du ko tee naan bu fekkonte ne jël nañ suñ tubaa gàttal ko gàttal ko na mu gën a gàtt yem ci kepp ñun duñ tiit luy ñëw ndax gënoon naa metti moom kenn la te léegi gën nañoo bari léegi fu nekk ña nga fa ana lu ñuy tiit ci ay taxaddiyaat yuy ñëw wala ay télévision wala ay rajo wala ay nangam te Sëñ Tuubaa nekk fi ba léegi Sëñ Tuubaa ngi fi ba léegi jógu fi ndax bu fa doon bu fa continué nekku fi ba léegi ba mu fi jógee 1927 Tuubaa du agsi fi mu agsi njëriñam du mel ne mu mel Daaru Musti du mel ne mu mel Daaru Salaam du mel ne mu mel fenn du mel na mel ba ñu nga yëkkate ay xasida fu gën a sori waaye ñu ko fa yóbbu yóbbuwuñ fa demuñ fa ngir yóbbu fa Sëriñ Tuubaa dañ fay liggéey rek di fa dund Sëriñ Tuubaa waaye nag dañ leen faa war a fekk wax ñooña ñu nekk kan mooy Sëriñ Tuubaa wax ko waa réew bañ xam ñoo kan kan mooy Sëriñ Tuubaa ndax boo weesoo fii njëreem nangami kilomètre képp juróom jëm juróom-ñaari kilomètre da gis ci am penc ci ab église bu nekk fa bu ne fang doon croix bu mag fii ci ginnaaw njëriñ dem juróom-ñaari kilomètre maa ngi tëje ci lu benn waykat bu waxoon man damay topp lépp lu bari bokk xam ne ci lingala lay way lingala da ñëw fi ku ñuy wax Ambroise Gomis dalal ko ci télé Sénégal loolu ci sintouba rek la wala ba ne ko ndax yaangi am ay contrat bitim rew mu ne luma koy daye mu ne ko niko ko samaram defé mu ne ko man fu mu mën dem fu mu mën am contrat li ëpp ci may seetaan ak ñima tax di wax moy africain yi ko di war la joggé ñëw Sénégal bu fi joggé mal la jëm dama bëgg africain yi seen bop xam ma ba fi ñi dem yobalé ma fa waye serigne touba mouride yi dañ ko def yëfi wolof dañ ko def jëm ji dox amna kilifa gu mag gune fi ci dëkk bi dañ koy xaar ci armée bi ñëpp diko nak na naaj tàng jër bam ñëwé mu joxañ ben way ne ko demal jullee ko man ma ax ba ci mom mané ko suñ bi soko ko julleeloo kii kenn duutu la xaar ci dara ndax ñun ñëpp ñi ngi fi woon bam ko jullee ba nopi ne ma nañ gise ma dem fekk ko fa mu ndax sañ na ma wo mu ne ma lolou am solo la man ra aminkum munkar mu ne ko déet say jëf jàppewuma ko munkar munkar mu ne ma munkar mooy lo xam man na mel man na gën na mel rek waye yeen ñi nek ci biir rawati rawatina biir diko ko ci barab sangam ba barab sangam tuba juma ji ba ci corniche ne ni ngeen ko bayyi xal gën ko wagar mané ko sëñ bi ndax am naa ne ko tuwa day neena dafa dugg ci suñu borom suñu borom amut makan amut zaman ku doon nelaw man nañ koy jëlee nelaw nelaw dëgg dëgg dëgg dëgg man nañ koy jëlee man nga ko jëlee fa la neex yóbbu ko fa la neex xamut fu mu jógee xamut fu mu jëm xamut ban heure jot bu fekkee suñ tuwaa dañ ko bëgg a def jëmm joo xam ne da nga koy làmb di ko daj boo ko daggee mu naaj bay boo ñu seeti feneen ndax jëm moom day al day day yàqu jëmm day yàqu waaye suñ tuwaa ay mabadi la lu ñuy dund la su fekkee li ñuy tere ñu ngi koy tere diggante jumaa ak cornice bi man maa ngi dëkk ci ñaari ñaari ñaar fukki mètre ak cornice bi corniche baa ngi sama gannaaw xanaa kon su ma neexee génn def la may def dellu si waat te corniche bi dafa fekk Tuubaa bu ñu ko dindi woon dootoo ko xàmmee mu ne ma déggoonu beesa nga ma ne ko Sëriñ Tuubaa amutoon soxla ci suuf amutoon soxla ci dëkk ci nit ñi la amoon soxla fu nit ñi dem dañ ko fa war a di ko fa dund li may tëje nag mooy bëgg nañ ñi ngi sàkku ñun ñëpp di ay murit ci suñuy woroomi xam-xam suñ ñu wanee nañu ñu ngi leen wër ak i gunt mais wolof laay waxal ay gunt ak jaasi tànk rikk nañ ñu wan bunt boo xam ne dañ cey jaar génn ci lu gaaw te duñu xuriku tañ bañ ñoo dawloo ndax am na loo xam dawloo nit ki la gaa yi dawal gaa yi nga ñëw bu ñu ñëwee nga dee gaa yi mënu ñëw wàññi dara mënu ñëw wàññi dara man ci sama pas-pas mooy Sëriñ Tuubaa du ku ñuy domp di ko kaata fi ñu toll nag bu ñu jeexee aw nit dana ñëw jël ko yóbbu ko ndax lislaam ab naar indiwu ko Sénégal ab ab xare indiwu ko fi liñ bëgg mooy ñu di wax ci Serigne Touba loo xam ne lu ñuy teg loxo la ba man koo toppandoo man koo roy waaye tey ngeen dee gaa yaa ngi ñëw ñu ngi leen wër xamu nu ngeen def ba génn ci la fa Serigne Touba la Serigne Touba dajaloon mënut a ñëwaat